laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi ñu tolloon ci téeréem bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur te suñu bind buy mujj ñu yemoon fi nga xam ne fi la sëriñ bi radiyallahu anhu doon ñu leeral di ñu wax naan yee naa leen ci coono boo xam ne euh, jànkonte naa ko la njëkk may am ngërëm mu mel ni loolu sëriñ bi radiyallahu anhu koy wax dañoo bëgg a xamal ne nit ki buy sàkku ngërëm bala mu ko am mënuta ñàkk mu daj ci ay coona moo tax lam ca teg dane na ngeen jihaat ak seen bakkan yi ba fexey ba bu leen di topp ay bànnee xam ndax bakkan moom la muy luy safoo luy safaanoo ak la suñu borom subhanahu wa taala di gërëm la kon sëriñ bi na da ngeen di jihaad ak seen bakkan yi te ngeen koy bañ di topp ci li nga xam ne ci leen di woo ngeen di topp li nga xam ne moom suñu borom subhanahu wa di gërëm te loolu mënta am lu da ngeen a juuyoo ak seen bakkan yi waaye da ngeen a juuyoo ak bëg bëgg yi nga xam ne moom la seen ah, bakkan yi eh, am sëriñ bi radiyallahu di continuer rek ci téere boobu ba tey di wax ne yaa taaliba dunya yow aji sàkku àdduna ihfazan na nga jàpp wala na nga wottandiku wala nanga nga peek wasiyati yi sama ndénkaan lii fa innaha naka sama ndénkaan lii de xaalisatun lu sell la bi niyati ci sama yéene ne na mi nga xam ne yaay sàkku àdduna na nga wattandiku sama ndénkaan lii nga xam ne moom laa la dénk ndénkaan yi nga xam ne moom laa la dénk day nee na su fekkee ne yaa koy bàyyi xel te eh, di ko jëfe nee na bu yi nga xam ne moom la àdduna làmboo ak gàcceel yi nga xam ne moom la àdduna làmboo te man koo gàcceel doomu aadama bi bu booba yàlla mën na la see musal kon nit ki li mu war xam li xam ne moo di ay noonam euh, di bakkan ak seytaane ak adduna ak bànneex yooyu yëpp mu moytandiku ko ngir moytandiku yooyu ca lay mën a euh, tàbbee ci li nga xam ne mooy ngërëmal suñu borom bi subhanahu wa taala te loolu moom loolu sëriñ bi di euh, digal ci li nga xam ne mooy dénkaan yi nga xam ne moo weesu kon nit ki su fekkee ne bëgg naa am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala faww day sàmmonte ak yooyu fexey ba juuyoo ak bànneex yooyu waaye fexey ba juuyoo ak noon yooyu nga xam ne nooni doomu aadama lan saa bu leen nit ki dee topp fa mu leen fa mu koy jëmee euh, du baax waaye euh, mën na koo andil gàllankoor bu baax a baax a baax a baax kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu digal ñu foofu ne na ngeen moytandiku na ngeen wattu sama ndénkaan lii nga xam ne moom laa leen dénk ndax na ngeen xam ne ndénkaande loo xam ne ci yéene ju sell sell laa ko defee waaye ci yéene ju sell la euh, laa leen ko euh, dénke mu ne ferra na nga daw mina dunya ci àdduna isa lam takun ndéem nekkoo maalika nafsika di aji moom sa bakkan di aji moom say bànneex tasir kon nga mujj zaamikanin di dara daraja mu ne na nga daw àdduna sa kem kàttan lépp loo man ci loo xam ne luy gàkkal sa sa jaamu yàlla la wala loo xam ne day gàkkal sa dund fii ci àdduna wala loo xam ne euh, mën na la andil ay jafe-jafe ëllëg yowmal xiyaam ne na loolu lépp na ko daw fii ci àdduna euh, su fekkee ne mënoo moom sa bakkan bu fekkee ne xam nga ne yow mii soo toppee sa bakkan fa mu lay jëme du baax ne na bu na nga daw àdduna ndax lépp loo xam ne bakkan daf koy bëgg di jëf ci loo xam ne ab safaan la lu neexut suñu borom euh, lépp ci ak sopp àdduna rek ci lay dellu waaye ci ak bëgg àdduna rek ci lay dellu kon nit ki su fekkee ne bëgg naa mucc bëgg a musal boppam faw li nga xam ne mooy li nekk ci biir àdduna ci li nga xam ne moo aju ci ay bànneex wala ci li nga xam ne moo aju ci la suñu borom subhanahu wa taala tere bu boobaa daf koy daw bu baax a baax a baax ndax loolee ca la ko suñu borom subhanahu wa taala di maye ay daraja mu ne tudxikuka dana la reeloo moom adduna al yawma tey wa tubkiika te mu lay jooyloo gadan ëllëg maalam tabiaha li feeg jaayo ko kon nag bien jaay ko tulazim ngata taqoog raxadaa xéewal euh, nee na adduna de mooy kër goo xam ne bu la jooyloo bu la bégloo tey benn fan la lay bégloo waaye euh, jooyloo la lum ëpp fukki fan mën na laa defal loo xam ne tey jii nga reetaan jàpp ne loola day mooy li nga xam ne mooy sax waaye bu subaa mu won la beneen xar kanam bu ginnaaw subaa mu won la beneen xar kanam mën naa nekk ne saa bu lu baax tey jii euh, ba nga jàpp ne kii de sama soppe wala ku ma bëgg la jàppal ne la nga xam ne mooy ñëw ca ginnaawam ay wori kese la ndax lenn loo xam ne day sax ci àdduna amut te sagam luy sax nag amut bu boobaa loola mën nañ koo jàppe ne ay wor euh, dong dong la kon àdduna su fekkee ne daf laa won xar kanam boo xam ne bu euh, euh, rafet la rafetal la lépp loo xam ne moo nekk ci biiram ngir nga koy sàkku bu boobaa na nga xam ne la mu ca jublu rek mooy ngir man naa mën a fexey ba jàpp la waaye ngir mën a fexey ba man la bu lay bu demee ba lay wor wor ya mën a mën a mën a yomb ci moom lool kon saa boo xamee ne adduna bëgg naa jàpp doomu aadama bi doomu aadama bi moom na ginnaawal adduna ngir xam ne su fekkee ne jox na léppam adduna tamit adduna moom la muy def rek su ca jugee ca loola mooy ay wor rek lay jëfandikoo ak doomu aadama bi waaye su reeloo doom aadama bi tey euh, balaa yàgg dina ko jooyloo jooyu mite mite mite mite euh, comme nag adduna noonu la bindoo te noonu la baaxoo li nga xam ne moo ci liy noppal doomu aadama bi kon mooy mu jaay lu nga xam ne mooy adduna jënde ko li nga xam ne mooy kërub àllaaxira waaye li nga xam ne mooy bànneex bi nga xam ne ci la ko adduna di woo ak di ko taaralal yenn mbir yi yooyu yëpp mu jaay ko ngir jënde ko ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala waaye ngir di xool li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle mu koy def waaye li nga xam ne euh, moom la aaye mu moytandiku ko bu baax a baax a baax a baax loolu nag tegtalewul ne euh, nit ki dafa war a nekk ci àdduna euh, di ne dama dëddu àdduna wala damay dund ak jaamu yàlla ba tax xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala xéewale doo ko jëfandikoo kon li la suñu borom subhanahu wa taala xéewale dee ko jëfandikoo waaye nag su la bëggee woo ci ak ak ak woru wala mu bëgg laa jay yooyu yëpp da nga koy moytandiku ndax euh, li nga xam ne moom la la suñu borom bi subhanahu wa taala xéewale nga koy ko ci sant te loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy ak jaamu yàlla ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ci alquran ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis Euh, li nga xam ne mooy xeewal yi la yi leen suñu borom subhanahu wa taala defal di leen ko ci sant kon euh, tekkiwul rek ne nit ki euh, buy dund ci àdduna dafa war a dëddu àdduna ci anam gi nga xam ne moom lañ waxe mooy lu mel ni li suñu borom li la suñu borom xéewale mu mel ni lu ak lekk wala lu mel ni ak naan wala lu mel ni sol yére yoo xam ne yére yu baax la yooyu yëpp nga woon ko ginnaaw ne danga dëddu àdduna loolu ak dëddu ndax ak bëgg àdduna wala ak xeemem àdduna loolu ci ab xol lay nekk euh, kon bëgg àdduna nekkul ci ak col waaye nekkul ci li nga xam ne mooy euh, euh, comportement di wane ne nii mel waaye na mu mel ba dëddu àdduna dëgg dëgg dëgg yi mooy li nga xam ne moo di ab xol moo koy def ci la ko suñu borom subhanahu wa taala di def kon nit ki su fekkee ne ab xolam moom daraay àdduna nekku ci ak lu mu mel mel ci kaw euh, dañuy jàpp ne kooku mooy ku dëddu waaye nag euh, di woote ak dëddu te xol ba boo demee mu fees dell ak ak bëgg àdduna loolu du ak dëddu waaye ak waru kese la kon euh, àdduna noonu la tëdde noonu la tëdde noonu la baaxoo mën naa jooyloo nit ki ci lu yàgg yàgg yàgg te bu koy reeloo benn fan rek la koy reeloo wala diir bu gàtta gàtt la koy euh, reeloo madmunuha lamu làmboo moom adduna alxisyaanu mooy gàcceel doomu aadama wal fadixatu ak toroxal ko wala turi du gis baaiaha aji jaay ko fadixatan genn gàcce ne na adduna day li mu làmboo mooy gàcceel doomu aadama rek ak toroxalkolo la lambo moom adduna ndax euh, su fekkee ne Eh, tey jii suñu borom subhanahu wa taala jox na ko kattan mu topp di di mbiri àdduna yi lépp mu jël ko def ko yitte àdduna saa boo xamee ne ak mag ñëw na bu boobaa àdduna day day jël lépp lim amoon eh, jël ay bagaasam dem bàyyi kook ak màggetam su ko defee moom mu des des to di eh, réccu boo xamee ne ki faatu lépp lu doon def ci àdduna noonu la koy rëccoo waaye lépp lu mu doon def ci àdduna ci li nga xam ne lu ab safaan la lu dëppoowut ak ngërëmal suñu borom noonu la koy rëccoo waaye it noona lay bëggee bëgga bëggaate delloo si àdduna ngir loole lépp mu man koo dabaatal fekk na loola weesu na ndax àdduna moom kër la goo xam ne day toroxal doomu aadama bi di ko di ko di ko gàcceel waaye nag su fekkee ne ki nga xam ne moo xelu xam na loolu dëgg-dëgg euh, li nga xam ne mooy wari àdduna yooyee ak gàcceel gi muy gàcceel doomu aadama euh, du ca tàbbi waaye dina xam ne euh, tey lu loo xam ne am na ko tey fii ci àdduna balaa yàgg dara dara dara dina ko ñàkk kon nit ki su fekkee ne yooyu mi ngi koy bàyyi xel bu boobaa àdduna dina doon loo xam ne du doon loo xam ne dina ko yiteel dëgg dëgg dëgg moo sëriñ bi ne Euh, ki nga xam ne nag moo jaay adduna moomee gàcce googi nga xam ne moom la adduna di gàcceel doom aadama wala mu koy toroxal yooyu yëpp sëriñ bi ne na ki nga xam ne moo jaay adduna jënde ko ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala jënde ko ak jaamu yàlla jënde ko ak topp yàlla kookee du gis euh, toroxal yooyu nga xam ne moom la adduna di toroxal doomu aadama bi wala gàcceel googe nga xam ne moom la euh, adduna di gàcceel doomu adama bi moo tax tuuba texe liman ñeel na ka nga xam ne azhadahu dëdduloo na ko mawlaahu boroomam fiihaa ca moom àdduna fa innahu naka moom waajooje turaa dina gis xolaahu ak kawem ne na kon texe ñeel na képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ci yow ak dëddu àdduna maanaam def na ci yow ak ñàkk sopp àdduna euh, def na ci yow ak ñàkk xeemam àdduna nee na kookee dee texe ñeel na ko te na xam ne suñu borom subhanahu wa taala dina ko yëkkati ba mu ba mu kawe suñu borom subhanahu wa taala dina ko yëkkati ba mu kawe kon àdduna ak kër la goo xam ne ay gàcceel doomu aadama ba ak toroxal doomu aadama bi nga xam ne moom moo jël léppam jox ko ko rek bàyyi suñu borom subhanahu wa taala ak digle yi nga xam ne moom la digle yooyu suko nit ki defee na xam ne àdduna mi ngi ñëw bis dana ko gàcceel waaye dana ko toroxal waaye dana ko jooyloo jooy yoo xam ne euh, dana ca bëgg a euh, noppi te dootul mën a noppi ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne fal tadxaku xalilan walta tabku kasiran na ngeen di ree tuuti tey jooy lu baree baree bari nit ki nag su fekkee ne mi ngi ree tuuti tey jooy lu bari loolu liñ ci man a dégge mooy sooy jooy lu bari wala sa xol nga koy jooy lu bari mooy dana man di dellu ci suñu borom subhanahu wa waaye su fekkee ne lépp loo xam ne moom la la àdduna gaaral rek nga jàpp ne lii de luy sax la ba tax nga jël sa yitte jëpp def ko ca euh, ker bu la àdduna di woon ginnaaw daf lay daf lay bett kon àddunaa ngi noonu ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax waaye nag ñu xam ne li nga xam ne moo di ab yóbbal fi lañ koy liggéeye lépp loo xam ne mooy jëriñ doomu aadama bi ëllëg yowmal xiyaam fi lañ koy liggéeye waaye nag saa bu euh, doomu aadama bi jëlee léppam nag jox ko àdduna ci ab safaan nga xam ne lu koy bégloo ak bànneexu bàkkanam ak yooyu rek la euh, jël léppam teg ko ci bu boobaa nag àdduna moom euh, mën na ko wor wor yoo xam ne su ca jugee gàcce rek lay àndal waaye toroxtaangi rek lay àndal waaye rëbbum suñu borom subhanahu wa taala rek lay àndal kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcce foofu kàddu gi di wax ne in uridu ila al islaha ma sataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati على الصحابة والسادات كلهم